lu ngeen nekk. nekk ci jàmm tey sa mag daal di organiser ndogu indi ko fii nga xamante ni moom moo di rond point Yoff noo gisee ak. kontaan rek kontaan rek kontaan nañ ci torop di remercier président Sidi Fall bi Mame Fallou moom la lépp moom la ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram chaque année mu koy mën a def incha allah rabbi. sa relation ak Sidi Diop parce que gis nañu dafa am benn complicité bu nga xamante ni moom moo nekk seen diggante. si sama papa la <laughs> sama xarit la. sama mag la sama lépp la kooku sama lépp la. yaa ngi wax ci moom bët yi la la féete. <laughs> aw ma sago ci moom moom aw ma sago ci moom vraiment mënumaa wax sax ci moom sama lépp sama lépp la mhm. def anniversaire euh, mu yëkkati fold jox la ko mu nekk lu nga xamante ni voilà yow nga yëkkati fold daal di ko koy jox mu nekk lu nga xamante ni ñu bëri ñu ngi rêve am ko lu waral lool kooku su ma amoon àdduna lu ci biir defal ko ko. loolu rek laa bëgg sama àdduna mhm. su ma amoon àdduna ak YouTube bi defal ko ndax muy sama lépp moo ma yar moo ma xamal àdduna lu ma mel moom la mhm. lépp moom la lu ma am defal ko xeeb naa ko sax nag d'accord mhm. euh, tey sa mag nekk bu nga xamante ni duñ ko présenté ti ci réew mi nga nekk rakkam nekk jigéen tey boo déggee ñuy yëkkati ay baat yi ñaaw di ko ci kawam ñenn ñi di wax sax Sidi Diop war la noo koy noo koy dundee sant yàlla sant yàlla rek moom moom moom moom may defal yenn saa yi moom may defal yenn saa yi maa koy defal comme maa moom ay xarit lañ lépp lañ ñoo bokk kër yenn saa yi day ñëw di ma defal man tam ma koy defal day métti mais comme toujours rek lu may wax moom moo nekk artiste moo tax ñun lii dañ dañ koo nekk di xaar waaw dañ koy xaar ñu ñëw non yombul yombul moom na torop mais dañ koy gérer rek noo leen koy dundee ak famille bi. dañ cee dund dañ cee dund waxtaan defal famille bi ñun ñoo war a defal ñun ñoo fi nekk. papa nekk fi yaay nekk fi ñoo leen di defal ñoo leen di wax lii ak lii rek la ñu comprendre. Mhm. d'accord tey looy déggee ñi nga xamante ni dañuy wax ni Sidy Diop ak papaam maanaam jubóowuñu kaddu yooyu noo ko jàngat. ñu suñu papa amuñu benn problème ñu nekk suñu yaay amuñu benn ak suñu yaay nekkuñu ay nit yoo xam ne ñu fësal seen bopp wala fu ñu nekk ñu nekk fa wala du ñu sonal sol luñu ci dara yar ñu xam nañu ñun ñooy ñan pare nañ ci yar lañ am ci ñun te yar nañu fu ñu war a yaree def nañ ci ñun loo xamante ne bu ñu déggee sax ñoom dañuy xam que ñun ñoo def wala defuñu bu ñu defee xam nañu ñu deful xam nañu ñun defuñu amuñu benn problème benn problème suñu yaay. tey boo amoon message booy lancé ñenn ci ay Sénégalais ci kàddu yooyu nga xamante waaw dañ koo xamul rek dañ koo xamul rek loolu rek la mais Sidi ay ay kilifaam ñooy ay xaritam ñooy ay morom boo ko fekkee moog yaayam dangay defee ne nit ak magam dañuy kaf foore mu koy kott di bëre Sidy nu mu mel ci mbedd bi noonu la mel ci biir kër bi moom dafa wàccee boppam moom day kaf ak nit ñi di foow nit ñi noonu la mel ak papam noonu la mel ak yaayam noonu la mel ak ñëpp famille bi amul ak kenn xaar ma yàlla bu ñuy wax ne Sidy dafa am problème ak ay famille ak kii dañuy wax rek wax que ni genre Sidy mënul nitam mm-hmm. euh, ndax euh, au lieu muy jàppale ay nitam lu mu yor rek rafet ji la koy jox wala loolu aussi lan nga waaw loolu moom du ma ci wax wax dëgg neex yàlla ah. loolu du ma ci wax loolu dañuy day kii ay nitam ay nitam xam nañ ñu ko jege xam nañ ñu koy fréquenté xam nañ xam nañ kan mooy si lépp la waaw awa daa bokk suñun daa meroon rek di wax mais awa daa bokk suñun waaw daa meroon rek di wax mais awa suñu nit la awa mag la awa suñu lépp la dafa bokk ci ñun kenn mënu koo génne su ñun aw daa bokk ci aw ku baax la ku bëgg siidi la xol bi boo ko xaree siidi nga ciy fekk loolu ñun xam nañ ko coow li lu muy bëri bëri bëri suñu wax suñu kër benn waxtaan lañ fay waxtaan mooy dafa bëgg siidi loolu rek jeex na amatuñu leneen luñ ciy débat waaw ku bëgg siidi la awa ku baax la amul benn problème. yaa déggante mu ngi déggante moom bien sûr. depuis ñu taxaw fii nii sama yaay mi ngi woote sama papa mi ngi woote sama téléphone yaa gis mi ngi sonné ñu ngi déggante ak suñu papa ñu ngi déggante ak suñu yaay. kontaan rek di leen ñaanal yéen tamit. fekkee déwén mu bëree bëri merci beaucoup. <laughs> ok waaw euh, c'est ñu ngi taxaw ak euh, Fatima bu Sidy Diop dama koy bàyyi rek nuyoo Fatima maa ngi lay. maa ngi lay fay ma di la mastaw aussi ñu ngi fay ñëpp kontaan nañ ci ñëpp bëgg nañ ñëpp sant nañ aussi. ndogu bi ji ba ngor la ñu dëgg fa bëgg dafa fort te nit boo ko bëggee rek mu yëg la. amatoo fayam c'est cinq bi mooy cinquième édition dëgg fa yàlla heure bu ñuy def Sidy la ñuy njëkk a gis mu neex mu naqari mooy taxaw ànd seeg ñun ba lépp mat comme ni mu ko defee tey gis ngeen ànd na ceeg ñun ñu def ko ci jàmm ak salaam mu réussir ñëpp ñëpp kontaan pour man. lan sama papa la sama papa sama woykat la sama xarit la. Sidy bari ngay ah, parce que dafa njaboot xale la ba pare ñëpp wër ko. donc ñëpp ñu ay njabootam lañ. est-ce xam ndax tey bu da ngeen a am euh, xew wala ngeen am naqar Sidy mais bien sûr pourquoi pas day ñëw même bu fekk bu ko fekkul sax dina yónnee bu ñëwul it loxoom dina ñëw dinañu woo téléphone dinañu nemmeeku te foog naa loolu mooy ànd nit booy ànd ak moom te amaloo ko njëriñ euh, mën ngeen a ànd mën na faayam yam ndax dëgg fa yàlla lu mu metti metti dinañu gi dinañu woo dinañu yëg nañu daal. yéen ñi ànd ak moom bu ay kàddu ñi def. waaw daf ñuy métti daf ñuy métti wax dëgg fa yàlla man su ma nekkee ci su ma duggee ci réseaux sociaux ba dégg ñu ne ma Sidy daf may métti parce que ma xam kuy Sidy xam nga Sénégal nag mënuñu mënoo bañ nit bu la waxal parce que ñëpp la ñuy waxal fii boo nekkee yow daal nga ne yow yow rek yaa positif loolu mënul nekk parfois da ngay négatif nga nangu mais xam nga la moo a gën a neex ci moom lu waay di wax àdduna di wax du tontu. doo ko mës a dégg mu tontu te loolu noonu rek mooy ndam te mooy armam te ci loolu lañ ko nawee ñun parfois dañ ñuy def mais ñu tont parce que bu ñu xoolee ne ki ñu jiital muy Sidi lu ko waaye mu def du tontu fa la ñuy jaare ba ñu waaye def ñu baal ko. ñàkk la wala ci ci réseaux yooyu rek partout bu ko ni lu ko nit def mën na ne pat moom gérer li muy gérer te kenn du non yow lu bëri laa xam Sidi sama papa la sama yaay la. Ah. ce sont des frères et sœurs. non pour Sidi ak yaawa loolu mënu ma ci wax xale laaj parce que xaw ma ci dara man li ma xam mooy siidi frère yaa awa la yaa awa sœuru Sidi la Sidi sama papa la sama yaay la tout court waaw da ngeen di woo Sidi wala ngeen woo Yaawa ngeen laaj ko ndax amoon na ñoom ñaar relation mais man duma ci wax dama maandu ci loolu mm, patt yu sundur gi ci laa jënd ni toog ci euh, di remercier ñëpp kontaan nañ ci yéen ñëpp dëgg fa yàlla woote ñu wuy si la dafa neex te à chaque fois ni lay demee bu ñu wootee nit ñu wuy ñu ñu kontaan bég loolu lépp loolu fi gis muy muy xéewal sii dee ko fi joxe bu kenn ku ñu dimbale moom la de A à de moo ko fi def donc moom mention spéciale te chaque jour nii lay àndee ñun mu neex mu naqari day ñëw di koy ñaanal nag ay disque d'or ma li ma koy ñaanal et si day tey musique bi de et ñun Sidy rek la ñuy topp. moom rek la ñuy moom rek la ñuy topp. <laughs> Mamadou. <laughs> c'est Malaysia di la fay. ñu fekk la tey ci rond point Yoff ki nga xamante ni moom moo di Sidi Sidi Diop doon joxe ndogu ngeen bokk ci fans club bi tey acte bi noo leen ko jàng. oui kontaan parce que weeru koor bi nga jël lekk di ko joxe rek loolu rek dafa neex ba pare ñu ànd seet koo xamante ne dafa sori suñu xol muy kan Sidi Diop ah, ki ñu bëgg waaw ki boolewul daraay ki wax aussi waaw. lan moo waa li tax ñu topp ko bëgg dafa bëgg dafa am te aussi dafa foor parce que ki nga bëgg rek moo la noppal mais ki la bañ dafa la noppal mais Sidy dañ koo bëgg aussi moom rek la ñuy topp lan moo tax ñu topp ko euh, jikkoom man jikkoom daf ma neex parce que du du wax loo xamante ni du si dox wala mu ciy wax lan lañ ko xamee dëggu kaf ambiance aussi man li muy def ba pare nit mu mën mi nitam daal loolu moo tax ñu toog fu laa fayda ak man li mu def. tey noo leen dañ koy waa ñuy wax moom dañ leen di bàyyi ñuy wax rek ñun ñuy liggéey parce que Sidi moom ku nekk euh, xam na ko mu xamee ko yaa wax lan lañ ko xamee liggéey nekk si liggéeyam loolu moo tax ñu naw ko mais ñi nga xam ne dañuy wax naan day day war ñun moom yàgg nañoo moom musuñu war wax di yàlla bu fekkoon daf ñuy war ku nekk am nga sa fulla ak sa fayda dangay dem nga bàyyi ko mais ñun musuñu war te musuñu def loo xamante ni métti nañu. ñun macha allah da la ñuy wax yàlla nañu yàlla gën a bàyyi ak Sidi kontaan loolu daal la ñuy wax daal. d'accord d'accord madame. ça va ci loolu Astou Fall bu Sidi Diop. Astou Fall bu Sidi Diop loolu est-ce que du yow yaa ko ñemee wax jamono ji parce que ñu ci bëri dañuy baatal di wax ne Sidi Diop warkat. Sidi Diop pour te dire bu géej gi desul walaat du ma bàyyi ni man maa ko bëgg te xooluma mbëggeel bi ma ko bëgg rek moo tax ma toog da ko waxal lu baax déedéet lu baax loolu daf daf ñu koy defal staff bi dañu koy defar ñun fans yi te ñun dawuñu dara ci li nga xamante ne bëgg nañ ko daal. tey kàddu yooyu yàlla dañoo dimbale ñun duñu ànd ak ku gore di yàlla daf ñoo dimbale côté boobu moom Sidi Diop tey jii bu gore di woon man maay njëkk a jël sama dàll. jóoba juba roqaya aaroona njaay loo dund doyot yoo ñun yow rek la ñuy topp baax ci yonent bi lan moo tax euh, lan nga lan nga jàpp que ni moo tax ñu koy ñu koy waxal kat yooyu no ñu koy waxal noonu xëy na ñoom seen expérience ak seen xalaat foofu rek la toll waaye ñun ñii duñ ko wax ndax Sidi Diop wan nañu ko doxew ko ci ñun te waxew ko ñu ci ñun tamit ko si bi noonu la tëddee est-ce que ñi lay seetaan duñu wax euh, maanaam buzz bi ngeen di am ci Sidi Diop moo tax ngeen koy waxal li mukk ci àdduna ñun waruñu buzz waruñu média ñun dañ koo bëgg te yàlla tax moom mu bëgguñu ñu te yàlla tax jàppee ñu ni rakkam mami Diop nu mu ko jàppee ci kër gi noonu rek lañu jàppee ñu pàppoo ko mu doomoo ñu kaa bi noonu la tuddee mukk ci àdduna kooku fu taxawee bu nee dar nga be yow boo taxawee di ko déglu da ngay jooy tamit mbëggeel bi fu mu ñu toll la sii di luñ ko waxal baax na waaye ñun gisuñu ko ci moom. d'accord Awa Ama yëkkati fi ay kàddu wax ni siidi jóob workat laak li ni mel ndax dugg na prison te Sidi Diop moo tax ngeen nekk ci fan fans club bi kàddu yooyu noo leen ko jàngal xëy na moom dafa mer rek mu wax wax yooyu noonu mais bu toogee ci ruq dina ko rëccu parce que nit ki même bu fekkee defal na la benn fan sax defal na la moom tamit aussi ñëwaat na ñuy seetaan ay interview mu ne siidi da koo ñëw fekk ba bunti këram woo ko mu wàcc mu yëkkati ñaar fukki junni jox ko kon erreur daan mënul ñàkk ci nit ndax nit ñi di dem nii dañuy dem nii rek waaye des fois sax mooy loolu waaw xëy na gis-gisam la daal waaw mais ñun moom ah xanaa di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal jàmm ju baax ndax ñun bëgg nañ ko te ba allah suñu xol sori na ci moom ah su may wax ci moom sax damay jooy joobaru ba euh, roqee aaroona njaay sama waa ji ñun ñoo la bëgg